waaye loolu sëñ Moussa Bachir waxoon ne bu sëñ Touba taxawee nii yàlla taxaw nii yonent bi taxaw nii su ma ñëwee sëñ Touba lay jubali waaye man it bu yàlla taxawee nii yonent bi taxaw nii sëñ Touba taxaw nii cerno taxaw nii su ma ñëwee du ma ci nuyu kenn kenn laa du nuyu laa ci cerno laa jëm kenn laa ci dut nuyu direct ci cerno duma leen xool sax ba xam ni seen mbubb yi mel direct ci cerno rek direct ci cerno